et euh, programme programme am kenn du ko kenn du ko ñuy basé wu rek ci ci programme en fait euh, ki ñu war a élire. Mm. en deux mille vingt quatre. dafa war a nekk déjà quelqu'un boo xam ne euh, xam na donc les rouages qui ont ruiné le système c'est-à-dire le système depuis mille neuf cent soixante koo xam ne xam na jafe-jafe askan wi koo xam ne dund na ko koo xam ne am na ay solutions. pour mën ci pour mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi am parce que bu ñu bu ñu defee un peu historique bi da ngay xool ne en 2000 Abdoulaye Wade dafa fekk budget boo xam ne nii en 2000 Abdoulaye Wade dafa fekk budget boo xam ne nii 800 milliards la woon en 2000 2012 mu bàyyi ko deux mille sept cent milliards. Macky Sall fekk budget boo xam ne deux mille sept cent milliards la woon mu yóbbu ko sept mille et quelques euh, booy xool kon Abdoulaye wàdd dafa multiplier par ñett ci budget bi nga xam ne moom la Abdou Diouf bàyyi woon fi Macky Sall budget bi mu fi fekkoon da ko multiplier par ñaar ñu xool ci yoo xam ne nii tey dem na ci wàllu taux chômage chômage Abdoulaye Wade en 2012 mi ngi ko bàyyi. ci 12 pour cent. Macky Sall waxuma la nga def cours économique. Macky Sall wax ne ku nga xamante ne dañ koy élire nan la war a nan la war a mel. jafe-jafe yi buñ la ko expliqué woon. nan laa lay wax ki nga xam ne nii profil profil bi profil bi moom laa lay wax exactement et pour ma wax la ko je pense légitime na ma wax la li nga xam ne moom moo am Sénégal ak ki nga xam ne moom lañ bëgg mu jiite ko yan valeur la war a incarner ak lan la war a indi ci lu bees. ci loo xam ne bu ko mettre en œuvre Sénégal dina jóge fi mu jóge ñëw nekk un pays sincèrement bu nga xam ne dina dina dina dina am développement boo xam ne nit ñi dinañ ko dinañ ko dinañ ko sentir ci biir famille ci panier ménager yi mais carrément sénégalais bi nga xam ne nii day def agriculture day def élevage day def pêche day def artisanat day def culture yëg boppam ci secteur bi nga xam ne nii moom lay def donc pour dire quoi pour dire que taux euh, ñi ñi nga xam ne ñooy chômer actuellement toll nañ kon ci vingt quatre euh, euh, vingt quatre voilà pour cent donc pour vous dire que peut-être régime bi li ñu rate ñun dañ ko war a rattraper mais régime yi nga xam ne yépp nag ñoom ñoo fi jaar ki nga xam ne dañ koy fal en deux mille vingt quatre il doit d'abord rassembler les énergies fexe ba tey sénégalais fu mu nekk ci secteur bi mu nekk mu yëg ci peut-être boppam. popularité ak nangam nangam l'essentiel. mooy que yow popularité ak programme. c'est important programme. programme moom peut-être ñun kenn duñu ko reprocher parce que tey secteur boo ma laaj dinaa la ne secteur bi fii la toll. ñun suñu euh, programme politique lii la bëgg a def pour changer secteur boobu noonu donc loolu c'est un boo ma nee nag classe wàllu ci peut-être popularité dinaa la ne ñi ngi liggéey sur le terrain parce que tey. bu doon defoo liggéey boo xam ne nii ci peut-être terrain nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko sas xëy na tey doo jaar waa mais sëriñ bi damay laaj ko yow populaire def nga say rassemblement nga mobiliser damay laaj il dama lay tontu de maa ngi lay tontu populaire oo demandé nañ la cinquante huit mille neuf cent soixante quinze parrain nga dem ñu valider la cinquante trois mille parrain. kon ku valider populaire li may ñaan mooy li may ñaan li may ñaan mooy. li may ñaan comme populaireul yàlla bu mu populaire. bu dee populaire sauf que critères bu nga joxe pour le prochain président Macky Sall avait les ñu ngi ci. non non non non non Macky Sall mënul nekk. dans les mêmes critères parce que tey bu ah, ñuy wax ay données. il est non. il est pas issu d'une si critères yi nga njëkk moi je vous parle je parle man de dette je vous parle de taux de chômage de choses yoo xam ne nit ñi dañ koy dund wax la ne comparativement booy xool régime bu Laay war di def en terme d'IDH tey sunu indice de développement humain fan la toll. alors ma soo jëlee infrastructure Macky Sall dépasse Ablaye Wade de loin. non non non mais Macky Sall dépasse Ablaye je vous parle je vous parle de données yoo xam ne nii qui existe. xam nga ñi ko non baal ma foofu rek c'est important donc euh, données moom laa lay wax. donc en terme euh, d'IDH bi nga xam ne nii tey moo jël en compte l'espérance de vie moo jël en compte PIB li nga xam ne mooy lépp lu ñuy produire au niveau intérieur moo jël en compte éducation dama ne la euh, régime mu Macky Sall. d'accord gën a lajj. donc euh, quand par... vous me parlez peut-être d'infrastructure loolu c'est un parmi tant de choses c'est un îlot dans l'océan. d'accord beneen bi mooy. sawaay euh, nga yow soo bëggee fekk non loolu la quoi vraiment parce que soo bëggee fekk journaliste aussi ngay débattre ak moom si ah. économie da ngay sol sa bopp xaaral ba am appareil bu euh,